Waouh, attention attention attention sama gars yi Modou Yacine ci biir géew bi Kouthia ci biir géew bi waaw waaw yàggatul de yàggatul léegi at bi sifle génn seen diggante Kouthia Malika écurie Malika Mbolo Modou Yacine bu Medina écurie Fass Benno yàggatul de Ucha. Kouthia mi ngi taxaw pare na Modou Yacine mi ngi taxaw aussi pare na Yacine pare na Kouthia pare na yàggatul de léegi léegi léegi at bi sifflé génn seen diggante Kouthia Malika Mbooloo Kouthia bu Malika Mbooloo noonu te seen yi di Grand Médine ay ca ndongo ndeysaan waaw waaw attention attention yàggatul de ah problème de positionnement la ñu am nag problème de positionnement moom la ñu ci nekk dafa taxaw campé ci position waaw waaw a ah, pil ko pil ko fota mu pil ko waaw dafa mel ni mu moo pareegul Modou Yacine bu Fass Benno Ounthia bu Malika Mbolo ñaar ngay am noonu Modou Yacine moo taxaw na Modou Yacine mooy dox moo jàkkaarloog ñun Modou Yacine moo jàkkaarloog ñun Ounthia Gomis moo ñu won ginnaaw Ounthia Ounthia moo ñu won ginnaaw aha Ounthia bu Malika Mbolo ak Modou Yacine Modou Yacine bu Fass Benno arbitre bi sifflé na génn na seen diggante 20 juin 2021 ici à l'arène nationale avec le promoteur Fallou Ndiaye à la tête de la structure Ndiaye Production moment organisé. les filles, grand combat blindé à kii et pendant ce temps à Géoubi géew bi am Malika écurie Malika Bolo, ak Medina écurie Fass Beno arbitre bi na attention Attention Attention Kouthia mi ngi taxaw jàkkaarloo ak Modou Yacine Modou Yacine aussi mi ko bu Malika mena na ni dem waaye demul Outhia mel na ni dem waye demul de mod yassine mo jàkkaarloog ñun waaw waaw attention Outhia dem na dem na cokaas génnaat dafa dugg cokaas génnaat attention Outhia Modou Yacine attention Outhia dugg na génnaat ba tey dara amagul de ba tey dara amagul Outhia bu Malika écurie Malika Mbolo Modou Yacine bu Medina écurie Fass Benno mesdames et messieurs, concernant le combat qui est en train de se dérouler dans l'enceinte, dans l'enceinte, comprenez-vous ce qu'il oppose deux ailes. L'un nous vient de Malika, Uncha, pensionnaire de l'Ecurimoro, Et l'autre nous vient de la Médina, Moudiassine, pensionnaire de l'Ukurifas Beno. Le combat se poursuit. Le combat se poursuit entre le pensionnaire de l'écurie Malika Mbolo, en l'occurrence Muncha, et le pensionnaire de l'écurie Fas Benon, en l'occurrence euh, Modiasine de la Médina, écurie Fas Benon. Attention, les deux, les deux lutteurs se respectent mutuellement. Attention, essence de coup. Essence de coup. Modiassin a essayé de pénétrer la garde de Oucha. Oucha vient de riposter avec un, un coup violent pour coup. Attention, Uncha de l'écurie malikabolo Modiasine de l'écurie Face Beno. Le combat commence à tirer en longueur. Ah, voilà, maintenant il s'accroche l'un à l'autre. Accrochage. Attention, Uncha a essayé de plaquer son adversaire. Uncha a essayé de plaquer Modiasine, mais il n'a pas réussi le geste technique pour parvenir à le terrasser. Bataille Samagaï, une Kouthia Modou Yacine Kouthia Modou Yacine attention Kouthia dugal na ci garde bi na ci garde gi génnaat na attention Modou Yacine dugal na dañoo joxante cër Kouthia mi ngi jóge ci victoire digganteem ak Isaac naturel naturel bu Grand Yoff Mbooloo mu la mujjee bëreel daan ko kii di euh, Modou Yacine su ma jumul ci defet la jóge digganteem ak Petit Baye Fall Kouthia ngeen am noonu moo ñu won ginnaaw Modou Yacine ngay am noonu moo ñu won kanam moo jàkkaarloog ñun Modou Yacine dafa respecté Kouthia da koo jox cër respecter respecter combat bi warul Djoum. xam warul Djoum. attention Waouh Yacine il Benno

Attention Attention Wow,

waaw waaw attention roofoo nañu Ounthia jël na ko Ounthia jël na ko lan xew lan xew sama gars yi dafa mel ni jël am na de dafa mel ni jël am na de ah oui Ounthia daan na ko Ounthia daan na ko jël bu ma de est-ce am na est-ce am na wóoruma mais arbitre yi Ounthia lañ jox ah, Ounthia lañ jox ndam li Ounthia daan ko Ounthia daan na Modou Yacine non kay Ounthia bu Malika daan ko Ounthia daan ko ndeysaan mooy wax noonu ak supporters yi Ounthia ngay seen noonu waaw waaw sama gars yi xool leen supporters yi ñun ñëpp Ounthia moo leen fi andi Ounthia daan